stade Léopold Senghor. ñi jaay xar fii fi mu ne nii mënuñoo assuré ne xar dina doy ren. xar non xar moom ba instant yi moom wax dëgg yàlla mënaguñ la cee wax dara mënaguñ laa wax ni xar dina am mënaguñ laa wax ni xar du am waa parce que ka ka yaa ngi ci àll bi. jula yëpp a ngi ci àll bi. waaw bu desee noonu 10 jours daal noonu si la ñuy soog a xam ndax xar ba dina ñëw carrément wala du ñëw ren de moom ndax kar yi dinañ moom xam naa heure bi daaw daal la gënoon a bëri kar parce que gis nga man mi heure bi daaw yoroon naa fi ay kar yu bëri stade gis nga lii rek laa fi dolli ak travaux ndakaaru dafa gën a xat ba travaux moom ba dalal ci boppam sax mu amatul place sa fii Dakar waaw boo xool la nekk ne ci waa fii amul place waa fii dañ fee lii nii rek no xat-xat rek waa boo xoolee maganicien yaa ngi fi oto yaa ngi fi ndi grava baa ngi fi mbalit maa ngi fi ndox yu salte yaa ngi fi. manifestation yi am fan yi tax na nelawatuñu ba yendoor. Ah, no sécurité moom wax dëgg yàlla des na carrément sécurité moom moom amaguñ ko. Hmm. waaw parce que parce que sécurité bi instant bii ñu ñooy gérer na suñu bopp na suñu sécurité. est-ce que lii bu ma ko sax damay dem du ñëwaat parce que dama yaakaar problème sécurité bi daal moo kaw des tuuti loolu moo indi ñun nii ñi ngay gis fii nii ñun bu ñu jaayoon lii tey tey tey dañuy dem xam naa duñ delluwaat sax presque ci àll bi la defee tabaski bi. seeraayu ngooñ mi yokk na ci xar mi karaw itam. li la waxalee dëgg rek xont moom ngooñ seer na trop trop trop parce que saako ngooñ instant bi mu ngi ci 6000 koraay Mali bi mu ngi ci 17000 18000 wax dëgg yàlla xont moom seer na. waaw ba ngooñ moom mën ngaa dépasser deux sacs par jour. waaw mi dafa seer repas bi seer jënd ngooñ àll bu 2000 ñëw di koy jaayee fii nii saako 6000 wala mille loolu du yoon. jaaykatu ngooñ mi nee na ak li ñu daj ngir am ko war naa gën a seer. loolu amul fenn ak ku nekk xam na ne ak fii période bi toll nii tabaski bu tolloo fii ngooñ du yomb li waral muy jafe fii nag mooy fee lay jafe d'abord fi muy jugee. parce que fi muy jógee yaa ngi jëndee saako bi 4000 pour l'instant nii nii nii côté Tamba mënoo ko am moins de 4000 déjà sax amul kon donc xam nga mënoo jëndee saako 4000 ñëw ba fii transport et tout ça li ci daj lépp sol bi ak fay bi lépp mu taxaw la presque 5000 francs wala soit 4500 nga ñëw di ko jaayee 5000 wala. en fait 6000 francs bi sax je pense que war na ko war na ko war na ko weesu. tabaski soreetul waaye jaaykati xar yi xamuñu ndax xar dina bëreem déet wala njëg yi dina yombam déet bu ñu boolee yëngu-yëngu yi am ndakaaru fan yi ak seeraayu ngooñ mi loolu rek ci seen kàddu mën naa tax ñu laxas jaan ci njëg yi.